kon ñu ngi masawu ñëpp wax ni stratégie terreur boobu nag indi nañ ko ba hôpital bi ma nekk tey ndax ci suba ba léegi convoqué nañ waa hôpital bi police di leen laaj question yoo xam ne kenn xamul naka lañ ko mënee laajte nitu hôpital pourquoi Ousmane Sonko nekk seen hôpital lan la fay def ak wax yoo xam ne kenn xamul lu mu doon mu mel ni léegi crime la Ousmane Sonko tawat am hôpital bu mu dem ñu faj ko comme tous senegale kon gannaaw bi ma waxee li xew yépp ci bés ba wax leen gën leen soññ ci taxawaay bi xeex bi na gën a dëgër na gën a taxaw te man mii di wax a yéen bu soobee yàlla ëllëg dinaa jóge ci hôpital bii dem sama kër yeggali fa sama noppalu waaye xam leen ni kenn duma jiitu ci xeex bi lu mu lu mu laaj rek bu soobee yàlla dinañ ko def ndax xeexaluñ ko suñu bopp dañ koy xeexal suñu réew dañ koy xeexal suñu sët ak suñuy sëtaat bu leen kenn xoqatal bu leen kenn tiital bu leen topp ñi nga xam ne seen intérêt kese kese moo leen tax a jóg ndax liñ leen di jox ñu wër di wax réew mi suñu réew la ñun ñëpp ñun rek a ko mën a defar kon di leen gën a lancer appel boobu di ko lancer coalition bi ma bokk di ko lancer l'ensemble de force vive de la nation di wax nag ni dafa jot ñépp ñi nga xam ne ñu ngi ci ay xeex nañu fexe ba xeex yooyu ñu dajale ko muy la jonction des forces vives di masaw it suñu mbokk suñu xarit suñu frère Dame Mbodj mi nga xam ne Sénégal yëpp gis na ni essayé nañoo faat bakkanam ci loo xam ne kenn xalaatu xalaatuloon ni am na Sénégal du gulet nag ndax def nañ ko ci ay soldats yu réer kii ñu gis retrouvé euh, corps bi kenn ba léegi kenn gisu ko gis nañ fi ay nit yu dugg ci polis ak seen wér-gu-yaram ñu génne seen néew ay fan ci gannaaw lépp ci nguuru Macky Sall la fi amee lii nag bu woyee kenn ku ne dina ut jumtukaayam ni ko kenn ci ñi doon waxtaanee démb waxee ñu naan ñu ngi koy wër kenn ku ne dinga dem ut say jumtukaay daal di waajal sa bopp fajal sa bopp te li ci gën a yéeme mooy bu kenn yaakaar ne justice dina ci àddu mukk ci àdduna daam boo keneen ak keneen ku déposé plainte justice du mus yëngatu ne day def enquête man mii di wax ak yéen rek am naa lu mat juróom-ñett ñaari plainte yoo xam ne mi ngi ci table justice 2017 ak léegi amul benn boo xam ne mus nañu ubbi enquête te moo neem ku déposé plainte ne Ousmane sonk rek ñu ne nañu gaaw ut fuñ ko jaaree ba tere ko nekk candidat di ma sew Mbodj bu baax di ma masaw it maître Clédor Ciré Ly nga xam ne mag la waaye liñ ma sotti lañ ko sotti te muy koo xam ne dafa am ay jafe-jafe ci wér-gu-yaram moo tax ñu rawale ko mu dem bitim réew ñu xool yaramam di ko ma sew di ma sew njabootam ndax lii mënoon na ko jural loo xam ne kenn xamul fu mu toll kenn fu mu fu mu yegg kon ñu ngi masaw ñooñu ñëpp